mais rek mais rek Modou Anta ñii ay adversaire de taille la ñu ne mbaa xam nga ni ñaari adversaire de taille moom la Modou Modou Baye Fall boole. cey lool Boy ak r ku ne jógee ci ku ne jógee ci ñu bàyyi la ngeen aja Boy waaw di wax ne onze billah bisimilah inna inna wàllu yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp. di nuyu sama grand guy ñambur di nuyu sama rak jagaan di ko ñaan suñ moom defal ko moom combat suñ moom defal ko ndam. di nuyu ñëpp ah. waaw. ayca R. grand Fall bi. waaw. auzubillah bismillah inna wani yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba di wax bismillah dal jàmm rahmaani ñu dalal ko ndànk rahimi ni ko saak alhamdulilah jàmm ñu bëri. jaajëf bii de garage ba la nga ne garage ba la taxawoo. lu waaye waxat na ca dellu mi ngi nii. waaw li ma waxoon laa wax ba léegi peut-être wax jaratu ko parce que combat li des daanaka matul semaine li mu ko wax mooy mu ñëw rek tëral boppam sinon lu métti dina ko ci fekk maa ko mën maa ko bu doole dama koy duma daan ko incha allah. mais a neex la gën parcelle ba tey yéexagul. nee na dëggal sa bopp. dëggal sa boobu wax R5 yaa ngi dégg pour dëggal bopp man na wax R5 musuma am combat réglé yee mag la may xale bokkuñu man ak moom duñ sax benn. moom moo la mag kii yow mun a jur nga naa ma moo mag. kii di sama papa kii dafa yàgg si yoon bi dafa may abal ma dem faxas joxos la dóor amul leneen. booy si. musoo réglé di di ko wax ni ah lillahi wa rasuli combat bii nii ah bu chaque jour nag mooy ma mag maa mag maa bu doole maa dàq bëre maa daan incha waaw loolu amul loolu amul man dañ maa yónni yaakamti ma taxawaalu waruma man jaama gën roi des arènes laa signé ak ñoom nee leen ku dem Touba day jaar njaareem dafa bokk si yoon bi dama koy faxas rek joxos dem sama yoon waaw maa ngi woo waalo waalo yëpp di woo waa jàmm gën yëpp di woo sama mbokku lébul fukki penc ñaari ñëpp maa leen di woo di woo waa Kirène waa Diass waa Casamance waa Dionewar waa Fouta xam la ma la di woo tamit euh, séeréel saafeen yi waa Kirène di wax Pa Moussa euh, Pa Moussa moom laa tuddee làmb ji jibi jibi siis président solution bu Kirène ah waaw ñu ngi lay woo bu baax a baax nga jàpp xam ne seen doom seen rakk seen lépp yenn séeréel saafeen yëpp ñëw leen ñu jàpp ko daan ko ñu dem ñibbi amul la ayca boy sin wooteel. waaw man di woo waa partenaire waa partenaire un vingt six di woo sama waa écrit xam nga jiital ci gërëmi Pambay di ko wax ne xam nga ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di ko waa Rock Énergie yëpp xam nga képp ku mbër bu nekk na rek man boosi maa ngi lay sant di la gërëm gis naa ni ñuy sonné ci combat bi rawatina sama rak jegaan combat bi jaral na ko trop waaw di woo sama benn booy ñu ko wax Bas Capo Bas Capo maa lay woo ci combat bi sama ñetti intellectuel yi Ibrahima Ndiaye Inza ak Las maa di woo ci combat bi di woo sama mafia bi Indeset ku ci mel ni Talla Lako Baboy Talla Pen Djili Pambay Moussa Ndiaye di woo ñëpp di woo sama mbokk yi jaajëf ayta dem leen toog di woo waa ku si mel ne Thierno Touré maa ngi koy bu baax ndax gis naa coono yi muy daj si